honorable chômeurs yi bokkuñu ci sénégalais yi presse bi bokkuñu chômeurs yi bokkuñu ci sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo faloon le président Macky Sall non attends je vais vous dire encore une fois de plus hmm. caricaturé ma c'est que li may wax noonu mooy ñi nga xam ne non non neexee dama dama xam nga wax nga ma tu m'as permis ma sauter sur l'occasion pour expliquer dama ñi mu intéressé mooy ñi nga xamante ne nii peut-être euh, lapsus la moo tax ma ne chômeurs mais li ma la mën a xamal mooy hmm. ñi mu intéressé moom mooy ñi nga xam ne ñoom li leen intéressé mooy faloog fale ñun loolu intéressé wuñu li ñu intéressé mooy mandat bi ñu yor ni ñuy fexe ba jafe-jafe. askan bi alors la ñu mën a jàpp kon ne moom moo tax ñu tekki ndombal tànk maître mu Diop. li nga mën a jàpp nag li nga xamante li nga mën a jàpp ñoom ñoo génn. Ah, man maa nekk benn rapport bu épinglé Dakar Dem Dikk wala maître Moussa Diop. woon génne na ay chiffres yoo xam ne moo ci comme démenti. li ñu mën a jàpp comme danga maa laaj. Mhm. li ma la wax jàppal loolu mooy président de la république mooy nommé aux fonctions civiles et militaires moom jàpp na ne la taxoon mu fal Moussa Diop dakk na doy na mu dindi ko fa teg fa keneen loolu nga war a jàpp alors dañuy ñëw ci sëñ Saliou Guèye sëñ Saliou naka nga jàngatee yow euh, tekki ndombal tànkook euh, Moussa Diop boo gisee sax ñëpp di insister euh, ci ne ba xam lu jëm ci wàllu troisième mandat gi mu évoqué fii ci seen show looloo tax loolu dañ koy dëggal ndax gis nañu ne lu jëm ci gestion am ca Dakar Dem Dikk moom amul lenn luñ ci mën a wax waaw Mohamed loolu moom je crois que honorable député Abdou Mbow il est vrai que moi je comprends bien sa posture actuellement du ci mun wax comme cela se doit mais lecture bi nga xam ne sénégal yëpp moom lañu ciy am mooy la le troisième c'est-à-dire l'évocation du troisième mandat te loolu je crois que kenn mënu ko ci dax kenn mënu ko ci dax ou bien on va dire que la coïncidence aussi vraiment elle est président Macky moo ko nommé woon je pense que président suy nommé nit aussi c'est sur la base de compétence et de confiance en plus mais su demee aussi bay daax day gis ne peut-être war nga mën a def faute de gestion wala peut-être confiance bi mu amoon ci yow daf ko dindi mu dàq la il se peut aujourd'hui il n'a plus confiance en maître Moussa Diop dàq na ko mais le fait que chaque fois que bu amee moom dans son camp que des gens se prononcent sur le troisième mandat et pas n'importe quelle évocation aussi parce que ñi nga xam ne ñi wax ci troisième mandat bi c'est-à-dire l'impossibilité du président de la république de faire un troisième mandat toujours yat bi ci kaw ñooñu lay dal mais ñi nga xamante ne mën nañ taxaw ne président bi charte bi yu be sa charte suñu charte réew may na ko moom pour mu def troisième mandat si Sitor Ndour wax na ko Mbaye Ndiaye wax na ko Euh, comment dirais-je. Euh, Bougazelli. Bougazelli wax na ko am na aussi beneen maire je crois bu nekk Fouta sant daaf aussi wax na ko te pourtant ñooñu dara fekku leen. est-ce que ñooñu bokk nañu ci euh, nekk nañu au cœur gestion wu nguur gi ndax. sëñ Saliou mais mais Mbaye Ndiaye. ministre la. waaw mais Mbaye Mbaye Ndiaye ministre la. mais Macky Sall Moustapha Diakhaté mhm. Mhm. moom c'est son chef de seen kilifa. ñoom ah. waxoon nañu ne ñoom ñëpp woon na leen ne mandat bu ci kenn wax ah, dara. mais moom laa la non bu ci ou soit kenn du ci wax. mais deux poids deux mesures du ci am. moi je peux comprendre anam ñu ah. waxee. moom laa la wax moo tax ma ne c'est-à-dire deux poids deux mesures. bu leen ci wax ça veut que unanimement bu ci kenn wax en bien bu ci kenn wax en mal. Mhm. quand quand je dis en bien pour le président Macky Sall mooy ñi nga xam ne ñi ngi koy njortal ne mën na dem troisième mandat en mal mooy ñi nga xamante ne chaque fois bu ñu ne mënul def troisième mandat ñu ñu donc je crois que bu fekkente ne da ngay atte da ngay c'est-à-dire il faut être équitable sur toute la ligne mais mënoon nañ ñi ciy wax ci position pour que mën na def troisième mandat ñooñu kenn du leen sanctionné que chaque fois qu'il y a yoo xam ne au sein de l'APR ñoom addu nañ ci wax ne président bi mënul def troisième mandat yat bi tegu seen kaw. alors sëñ Saliou bu ñu gisee ne amul benn corps de contrôle bu dee OFNAC 2017 gis nga rapport bi euh, moom ci boppam toog na plateau démentir yenn chiffres yi. ndax mën nañu jàpp ne sa gestion a été nébuleuse ba yegg. ci mu tekki ndombal tànkam bi ñu ko daaxee nit ñi que j'ai lu une certaine presse ils ont évoqué de l'IGE les rapports de l'ARMP les rapports de la Cour des comptes gisuma à aucun moment à part rapport 2017 boobu ngay ngay wax nii que épinglé woon nañ ko dans sa gestion te moom aussi il avait même apporté un droit de réponse par rapport à ça ba cabinet bi nga xamante ne moo defoon kii bi sax dal na seen kaw mm-hmm. depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui rapport xam ne ñoo fi gën temps yi amul benn rapport bu mu nekk loo xam ne ñoom génnewuñ ko ñu denc ko seen biir mais amul lenn loo xamante ni ñoom wax nañ ne lii dafay épingler la gestion de monsieur Moussa Diop ak quoi qu'on puisse dire Moussa loo ko bañ bañ bañ bañ au xam nga ne dem dik am na fu mu ko fekkoon aussi am na fu mu ko yóbbu il est je crois depuis ou au moins il a une longue durée de vie au sein de l'académie li nga xam ne ça vraiment très rare au moins gis nañ des résultats visibles lu ñu mën a mën a wax mën nañ ne au moins ça ce sont des yoo xam ne maître Moussa moo ko teg maintenant na mu gérer peut-être que loolu su fekkente ne y a eu de gestion il y a qui doivent nous dire que Moussa Diop a commis des fautes de gestion voilà ce qui est à la base de cela dafa am ñoo xam ko jox ambition présidentielle moom maître Moussa Diop du benn peut-être raison raison boo xamante ne ci suuf la mën nañ ko wax euh, loo xamante ne dañu koy nëbb lu indi lii lu kenn yëgul Abdou je crois que même Abdou Mbow mii war na mën a am ambition présidentielle il est dans un parti après nekk fa il est non il est il dans un parti. aujourd'hui président bi nga xam ne moo ko jiitu il est en il sera en fin de mission présidentielle à partir de 2024 Abdou Mbow mii su ko neexee moom mu ne man am naa ambition présidentielle de la même façon que aussi maître Moussa Diop su ko neexee mu ne man am naa ambition présidentielle te je crois que képp koo xam ne da nga yëngatu ci parti am fa ay responsabilités. surtout nga dem ba am yenn niveau de responsabilité yi après nga nekk aussi chef de parti su la neexee nga ne man am naa ambition pour sama réew comme ni ko président Macky Sall à l'époque évoqué woon ba samp parti am ba tey jël réew réew mi d'accord grand nan nga évoqué euh, tey dan nga mën jàngatee tey euh, posture président la république Macky Sall donte Abdou Mbow wax na ni euh, président mooy xool ku ko neex mu teg ko fa dindi ko mais posture Macky Sall si jamono ji nga xamante ne ni ku wax ci troisième mandat parce que loolu lay muru mu génne la fa te euh, wax nañu ni ba fa Moustapha jaxate génnee am na ñu wax ñu bëri ni dafa perdre un allié de taille Moussa Diop mi tamit euh, est-ce que donte ba tey mi ngi ci euh, affaire yi ci ci mouvance présidentielle bi mais est-ce que lii nii du andi benn njeexital ci seen biir en tout cas Moussa Diop chef de parti la il est actuellement dans la coalition coalition présidentielle ak lu mu tuuti tuuti au moins je crois y' a plus boo xam ne indi na ko ci biir Macky 2012 parce que ñoom ñoo yore Macky Macky 2012. je crois que aussi xam nga dañ naan parti boo ci nekkee il faut toujours additionner mais il ne faut jamais soustraire et Macky Sall ça lu mu a éviter au sein de son parti mooy chaque fois créer des frustration yoo xamante ni dina bérébéré nit ki soit mu xëy bàyyi parteem dem combattre ko wala mu génn complètement de la coalition bi nga xam moom ci la nekk woon ou bien mu génn sax parti bi parce que ñi nga xamante ne tey ñu ngi leen dax quoi qu'on puisse dire c'est des gens yoo xam ne bu doon benn militant ñaari militant indil nañ ko biir indil nañ ko indil nañ ko APR donc je crois que la logique voudrait que moom ci wàllu boppam ñi nga xamante ne ñi ngi leen di dàq ci biir parti bi bon parce que kii dàq ñu ko ci mën na génn coalition bi nga xam ne ci la nekk te loolu je crois que les jours à venir peut-être vont nous édifier sur la posture ou bien la position politique de de monsieur Moussa Diop mais lu ma bëggoon wax dimet moo di xam nga tey bu ñuy wax troisième mandat chaque fois président bi ku ci àddu mu daax la parce que il faut le dire Moussa Diakhaté wax na si Sori Kaba wax na ci Moussa Diop a été la dernière victime man lecture bi ma ci def moo di que dans son subconscient le président quand même troisième bi mi ngi ci xelam. Ah kooku waxuñu bañ ko wax saa à dire troisième bi mi ngi ci xelam. d'accord alors lan ah. ngay tontu ci loolu Abdou mbaw ak question yi fi jot a jaar. li ma ci wax rek mooy d'abord xam nga man dama xaw a jaaxle. Hmm. xam nga jaaxle bi mooy. Hmm. souvent damay gis nit bu fekkee xaw na euh, président Macky Sall dindi na ko ci poste de responsabilité wala mu génn ko parti rek ñu commencé ko euh, di ko di ko tagg. comme fii. Hmm. parce que maa ngi dégg ñu naan waaw kenn amul benn faute de gestion te yàgg naa seetaan ah. hmm. chaque jour ñu koy sànni xeer di wax mais dañ koy commencé tàgg. mais journaliste bu jàkkaarloo nga Abdou daf lay poser question. allez-y euh, honorable terminé c'est juste que tàgguñu ko mais dañu koy poser question yi nga xam ne sénégalais yi tey moom lañu bëgg a xam ci maître Moussa Diop. waaw jàpp naa ne bu fekkee ne aussi da ngeen dalal nit. nga c'était juste une précision bi aussi dafa am. fu ñu ko war a mën defee parce que je pense que quand même. ñëwuñu fi pour polémiquer da ngeen ma laaj mhm. bi ngay wax d'accord ma ci li ngay wax dara mais dama la déglu ko donc dama bëgg nga dal déglu ko donc dama ne nit ñi dañu <laughs> commencé bu nit génnee rek ñu commencé tàgg di def nangam xam nga aussi il faut ngeen xam ne sànq maa ngi dégg nday Dimet daan ne Abdou Mbow nee na président euh, moo war a di non man waxuma dama ne constitution bi Ndeye Dimet moo jox prérogative président de la république muy nommé aux fonctions civiles et militaires loolu du waxu Abdou Mbow waxu sart ndey réew mi la mu clair beneen bi mooy c'est pas parce que Serigne Saliou nit ki def na faute de gestion rek da koy dindi parce que rapport de confiance la nit ki boo nommé nit loolu mën nga ci d'accord ak man c'est comme si je disais la fonction ministérielle elle politique elle n'est pas technique nit ki mooy am confiance ci nit nommé ko amatul confiance moom mu dindi ko nit ki naa nit fii app ba nga xam ne moom ak ma dindi ko kooku président de la république kese moo la mën a wax lan moo tax dafa mel ni une démission boo xam ne nit ki dafa ne dama démissionné par convenance personnel ba pare yow nga bëgg ko analyser naan lii moo tax mu démissionné xam nga loolu waane lay mujjee jur donc je pense que li nga xamante ni moom laa am comme analyse dans cette affaire xam nga mooy lan mooy euh, le président de la république bu dul benn du ñaar dañu ko woo 31 décembre posé ko question waxoon naa la ko ñu benn plateau bu ñu jege mu tontu ñu posé waat mu ne daaw ak léegi lu fi euh, change tontu mais wax ji jeex na ba pare ne leen je je ne veux plus que ñuy waxtaan ci loolu parce que sénégalais yi loolu ñoru leen maintenant li nga xamante nii moom mooy euh, président lii la bëgg ak dans son subconscient nag c'est normal parce que Serigne Saliou analyste politique la Serigne Saliou borom xeltu la Serigne Saliou da ko neexee def ay analyse c'est normal parce que aussi on a vu dans toutes les télévisions dans tous les pays mu am de professionnels yoo xamante ni dañuy ñëw di analyser di xam mu am ay prospectives et yooyu loolu duñ ko bañal nit ñi maintenant nag ñun mhm. la posture bi nga xamante ni moom la ñu nekk mooy président de la République Macky Sall li ko ñor mooy mu satisfaire li nga xamante ni moom mooy besoin sénégalais guddi ak bëccëg amul dara loo xamante ni nit dinañu ci bëgg a dugal muy guuta ñu xam ne lii guuta la ñu ciy dugg parce que nag Sénégal boo gisee ma ne am na loo xamante ni man duma ci nangoo wax di ci analyser mooy dañu am benn processus démocratique boo xamante ni depuis 1960 ba léegi musuñu ko wàcc 1960 ba léegi président de la république daf fi ñëw fekk fi ay cëslaay goo xamante ne mooy cëslaay démocratie te li ma mën a wax devant les sénégalais mooy président Macky Sall lépp loo xam ne yokk ko ci démocratie Sénégal du ko wàññi. d'accord alors honorable euh, sànq da nga wax ne tombé moom moo waral ay gan.